léegi mu ngi ci loxoy conseil loolu laay wax ni coup d'état d'abord constitutionnel bi mu def mooy ne ko en réalité mënuñu woon jël loi bi ñu dugal pour changer la loi constitutionnelle relative au à la durée du mandat et relative aussi au principe de l'intangibilité des clauses de la durée du mandat. Mm-hmm. loolu mooy du tax ñu naan constitutionnel institutionnel bi mooy lan mooy la le conseil constitutionnel est la cinquième institution de la république du Sénégal moom la constitution bi wax. donc bu cour suprême conseil constitutionnel waxee ba pare ne élection yi tànn naa ñii ñoo war a mën a dem élection donc lépp lu président teg comme acte pour que loolu mën a bañ a am violé na def na coup d'état institutionnel. mais ñoom ils ont le dernier mot. dañuy dellu si waat pour amaat le dernier mot. amoon nañu le dernier mot ba pare mu bugg leen delloo si waat pour ñu amaat le dernier mot. mais li mu def mooy d'abord dafa violer la constitution du Sénégal. mais je veux dire est-ce que ce bu fekkee ne euh, dafay tënku ba tey nga xam ne jàppoon nañ ne euh, yëf mën na mën na mën na dem. non loolu laay wax ni dama ne li mu def amul amul amul du yoon amul chemin. oui bu wesoo yoon bi kay est-ce que mën na aboutir ci dara parce que conseil boobu ñu. xañ décision mooy décider waat waratul mën a. voilà mënatul antu ci dara. parce que dama koy wax ah. Mhm. dama ne Macky Sall président Macky Sall mi waroon organiser élection yi ful la pire la def ba def li muy def convoqué corps électoral bi génnewaat décret ne annulé na décret boobu mu defoon. Mhm. li ci des nag mooy askan wi peuple bi candidat yi sénégalais yëpp ñoo war a def ful le pire ne ko du fi amee. avant la bataille politique euh, yëf yi ngeen teg ci légalité ci yoon. maa ngi mhm. lire sànq ne 39 députés de Yewwi Askan Wi. Mhm. Euh, mooy Yewwi Pastef ak Taxawu. Mhm. def nañu euh, recours conseil constitutionnel. demandé pour que tout simplement ñu annuler li xewoon assemblée nationale keroog. ak lépp loo xam ne président Sall jël na ko comme dogal tey jii nii. loolu lan lañ ci mën a xaar loo xam ne xëy na dina apaiser situation Sénégal tey mu delluwaat fi fi fi nekkoon. non foofu laa jëm rek. dama moom moom fulla pire la def ba def li muy def député yi ay député am def fulla pire biir assemblée ba teg seen loi. oui mën na ne peuple bi taxaw def fulla pire que loolu du jàll. après peuple bi le conseil. waaw conseil ñaar yëpp la ñuy àndandoo nag. voilà parce que peuple bi dafa war a taxaw tem. Mhm. ne ko lii du fi am. dooleel ñëpp. mais les les jours passent malheureusement. waaw mooy loolu laay wax nii foofu la ñu jëm nag parce que si loolu la nit ñi nekk. conseil constitutionnel aussi def fulla pire ne ko Macky Sall li ñu waxoon wax nañ ko ba pare élection yi day am. mu jeex. vous êtes conseil wax da ngeen ciy tënku. oui conseil constitutionnel bu tënkoo ci loi tënku ci constitution amul leneen lu mu mën a wax Macky lu may ne ko yi day am le 25 février. donc ñoom it war na leen ne li ngeen defoon parce que da da da daf leen daf leen bëgg sexalaat li ñu yàbbi woon. Mhm. est-ce que dinañu nangu ñoom li ñu yàbbi woon ñu sex ko.